moment historique boobu la ñu toll. dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main. yeneen réew yi ko def gënuñu ñu. gënuñu ñu. wallaahi yéen laa ko wax la jeunesse. 2024 ñu soppi réew mi. 2024 changement commencé na faw. 2024 yor yor ñaaw ñaaw yor yor jóge jóge définitivement. dog jam dog jam jaam bu mu jaam ji delloo si alal réew mi ci réew mi séddale ko séddale ko séddale bu maane bu maane lii la suñu projet bi ñu boole ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex koy koy door koy door ñu woon suñu woon fukki nit fukki nit di waxtaan ak Sénégalais yi gen koy gëm koy gëm ba tey mu tey ñi nga xam ne ñun ñëpp ñun ñëpp xam ne bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla yàlla ñu tere jël réew réew réew Rien de dafay à des moments historiques moment historique pour le toll. dafa am moment le peuple doit prendre son destin en main. yeneen réew des ko ñu. ñu. la jeunesse. 2024 ñu réew mi. 2024 changement commencé la 2024. yor yor ñaaw ñaaw yor yor réew mi jóge définitivement jog jam jog jam jaam bu mu jaam bi delloo si alal réew mi ci réew mi séddale ko séddale ko séddale bu maanu bu maanu lenn la lenn la projet bi ñu boole ñu ñëpp ñu koy xeex bi ñu koy door koy door woon ci ñu woon fukki nit fukki di waxtaan ak yi ngeen koy gëm koy gëm ba tey muy tey muy nga xam ne ñun ñëpp xam nañu bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla kenn mënuñu tere jël réew mi mbokk yi dal leen ak jàmm ci sen chaîne Jotna Media Group tay dañu ñëw rek pour continuer liggéey bi nga xamantene ne moom lañ tàmbali woon leeral lépp loo xamante ne jàpp nañu wareef na ko leeral ci wàllum politique position yi nga xamante ne Pastef mi ngi koy amee mais également fexe ba lépp loo xamante ne dañoo jàpp ne opinion bi war na am la bonne information la bonne sourcée

li nga euh, procès bi nga ne le vendredi 17 novembre 2023 le euh, cour de cassation parce que gis ngeen ki nga à travers agence judiciaire de l'État ñom dañoo def wax pourvoi en cassation ci décision bi nga juge bi di djelon nako fele ci ca chor di wax ne le président Ousmane Sonko dañ ko wara jox li nga xamne moy fiche de parrainage am d'ailleurs décision bo xamne batay ba tey dañ koy bañ respecter parce que dañoo ne duñu ko jëmmal loolu le dg wax gannaaw ba nga xamne aussi Sénat jóg ne dg e def ko parce que may sa kilifa Macky Sall mi nga xamne ne moom yor big bi nga xamne moko meuna may muy jël ay décret jël na décret bi waat ca Sénat ngir bañ président Ousmane Sonko jot li nga xam ne moom mooy fiche de parrainage am duñ wax ci Macky Sall xam ngeen ne loolu jikkoom la yu ni mel jikkoom la justice bi mënta am indépendance su Macky Sall loolu ñëpp xam nañ ko. waaye li tax muy def li yëpp également li ko jur mooy dafa jàpp ne moom bu xañee président Ousmane Sonko candidature am mooy tax Pastef du jot ci nguur gi parce que leer na ko ne. Ousmane Sonko candidat moy Pastef jotna ci nguur donc lool c'est clair léegi nak lan moy objet wu lii nga xam mom moy live bi ñu leen defal tay liko waral len la modi gis ngeen ne procès bi nga xam mo wara am le 17 novembre 2023 cour bi dafa wara am nu muy composé wu maanaam dafa wara am ay juge yo xam ño fa wara nek am rapporteur avocat yi wa fa war a fa mais ni cour bi composé wo déjà rek dañ cee dugal ko xamne mom faram leer na naññ ne ki mom Ousmane Sonko du ko du ko du nekk ak dara and ak deug ci Ousmane Sonko muy ki nga xamne mom moy le rapporteur bi ñuy tuddee Abdoulaye Ndiaye li waral nak ñu japp ne mom Abdoulaye Ndiaye mi mënu ta tok ci cour bi ba ay avocat wu président Ousmane Sonko récuser ko président Ousmane Sonko bien sûr ay avocat buñ bindé mom lañu bindal ñu récuser ki nga xamantene mom moy le juge Abdoulaye Ndiaye parce que dañoo japp ne warta mëna nek li nga xamantene mom moy rapporteur ci kaw lolu ñi nga xam ñom ñoy avocat wu président Ousmane Sonko saisir na ki nga xamantene mom moy cour suprême muy président bi di Siré Ali Ba ndaxte li ñu ko tax ñu saisir ko rek moy pour récuser magistrat bi nga xamantene ne moom Abdoulaye Ndiaye mom mi nga xamné mom lañu désigner désigné comme rapporteur ci procès bi ñu def le 17 novembre 2023 vendredi bële pass bële di ñew nga xamantene procès bobu ci pourvoi à cassation bobu mom mo wara nek lu définitif bañ na kat président Ousmane Sonko finalement dañ ko wara a jox li nga xamantene mom modi ay fiche de parrainage gannaaw ba nga xam ne cour suprême jëloon na ci ab décision le 6 octobre fàttaliku leen tey jii nii kii nga xamante ne moom mooy juge Sabasi, Fay, jëlaat ab décision ca tribunal daal ne président Ousmane Sonko dañu ko tooñ nañ ko jox li nga xamante ne moom mooy fiche de parrainage am agent judiciaire de l'État dafa defoon li nga xamante ne moom mooy pourvoi à cassation mu war a dem ñu atté ko le 17 novembre 2023 ca cour suprême ci kaw loolu juge bi nga xamantene mom lañu la jël comme rapporteur moy Abdoulaye Ndiaye légui dañ leen xamal d'abord cour bi naka la naka la naka la parce que audience boobu ki koy diriger mom moy Siré aliba nga xamantene mom moy président wu cour suprême bi après Siré Aliba, dina ci andak Abdoulaye Ndiaye mi comme rapporteur gannaaw ci ñooñu dina am Aysatu Diallo Ba Fatou fay ak cor Diop comme conseiller ñooñu aussi ñom ñoy composer li nga xamantene ne moy cour bi wara décider si Ousmane Sonko doit être candidat ou pas fele nga xamantene mom moy euh, Cour suprême ci pourvoi en cassation bi waye léegi lan mo waral avocat ou président Ousmane Sonko choisir ne dañuy jëlé ki nga xamantene mom moy Abdoulaye njaay comme rapporteur ci kaw loolu lan moo tax waa Ousmane sunko ak ay avocat am daal nekkat bëgguñu Abdoulaye Ndiaye mii mu nekk rapporteur u atte biñ ma war a atte man Ousmane Sonko fële nga xamante ne moom mooy le 17 novembre 2023 lan moo tax ñu bëgguñu Abdoulaye Ndiaye léegi balaa ñuy wax kuy Abdoulaye Ndiaye dañ lay wax lan mooy rolu rapporteur njariñ la mu am ba nga xam lan moo tax rapporteur war ñu koo jox n'importe qui après nak ñu wax leen kan moy Abdoulaye Ndiaye pour ngeen xam lan mo waral ñi di ay avocat Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko ne bëgguñu magistrat Abdoulaye Ndiaye comme rapporteur ci procès du 17 novembre 2023 di àjjuma ba la d'abord rapporteur mooy ki nga xamante président bi moom lay confier dossier bi pour mou def une proposition de décision Madame, dossier bi bu ñëwee ki nga xamante ne la ñu koy jox moom mooy ki nga xam ne moom moo war proposer daat ne kat man li la xalaat ne décision bii la ñu war a jël ci ñaar ñi ñu war koy rapporteur c'est-à-dire président bi mom lay confier dossier bi mom mu une proposition de décision proposition de décision nak da am conséquence ci yeneen juge yi nga position ci mbir bi donc rapporteur déjà c'est quelqu'un qui xamantene position parce que mom moy proposer est-ce que duñu àtte sangam sur la base de tel de tel de tel de tel nañu àtte sangam Nous avons ne Ousmane Sonko candidat la mën nañ koo ne jox li nga fiche de parrainage wala ñu avons du candidat mënuñu koo jox fiche de parrainage kooku mooy rapporteur parce que day proposer une décision dafay xelalaate day joxe une décision nous nañ ko jël moom rapporteur bi gannaaw bu mu proposer, li nga xamantene mom moy décision da koy jéem a def rapport détaillé jéem convaincre ñi nga xamantene ne ñoom les autres conseillers ngir ñu suivre ko ci logique bi nga xamantene mom la tek ngir ne kat nañu décider sangam mom rapporteur bi loolu bokk na ci mission yi nga xamantene ne lañuy la xaar motax bu ko defee nag ba proposer ko ba convaincre nit ñi ñoom yeneen juge yi nga xamantene ñooy servir de conseiller nous servir de conseiller au président ñu passé au vote daal nekat nañ ci and nañ jël telle décision wala ñu nekat duñ jël telle décision bu majorité bi gagné ñu nekat Ousmane Sonko est candidat wala ñu ne du candidat donc choix au rapporteur bi mom moy ñeu présenter fait yi présenter ni mu demee proposer une décision daat ne nañ condamné wala buñu ñu condamné na nekk candidat wala bu mu candidat mom bu koy def daf koy booleek rapport détaillé boo xamante ne day jéem a convaincre ñi nga xamante ne ñoom ñooy les autres conseillers ci décision bi nga xamante ne moom jël na ko moom en tant que rapporteur kon day ñëw mel ni kuy présenter benn position bu mu amee moom bu mu xalaat waaye da koy argumenté ngir jéem a convaincre ñi nga xamante ne ñoom ñooy les autres juges en tant que juge conseiller yi nga xamante ne ñoom ñooy jàppale ki nga xam ne moom mooy le président du du tribunal kon rapporteur bi ngeen xam ne position pose bu position bu ama am solo la ci procès bu ni mel parce que moom day défendre lenn wala mu ñàkk a défendre lenn la muy défendre nag da koy convaincre ñi nga xamante ne mooy les autres juges yi nga xam ne dinañu toog ci baar bi kon rapporteur bi moy ñëk jot ci dossier bi mom moy ñëk wax naka la def la ne lañ wara def mom moko ñëk def rapporteur mission yi nga xamantene mom la rendre décision mon rapporteur bi day proposer décision da nañ leen def sangam convaincre nga xamantene que juge yi ngir ñu top ko ci nga xamantene mom la bëgg légui nak kon xam ngeen li nga rôle rapporteur waa léegi cette fois-ci lan moo tax rôle bu ni mel njariñ la mu amee waa kër Ousmane Sonko ak ay avocat am ne bëgguñu le magistrat rapporteur Abdoulaye Ndiaye nekk le rapporteur du procès bi nga xamante ne moom war a tenir le 17 novembre 2023 li ko waral mooy lii moom Abdoulaye Ndiaye moom Du rapporteur bi nga xamné mom lañ bëgg a ci procès bi nga xamné am le vendredi 17 novembre 2023 mon écon juge bi cour suprême bi atté won le 6 octobre même fait yi gannaaw ba wa Ousmane Sonko porté won plainte DGE ne Ousmane Sonko nañ ko jox li nga fiche de parrainage à l'époque fàttaliku len cour suprême dafa décider won date ne DGE mom Abdoulaye Ndiaye moi mo décider won ne DGE bu mu jox Ousmane Sonko li nga xamantene ne fiche de parrainage dans le DGE mu nek ci ay mo nek ci ay droit mom Abdoulaye Ndiaye boko defone mom mo moo décider Cour suprême à l'époque ba Ousmane Sonko ak ay avocat am porté won plainte ñu dem Cour suprême mom mo né won mom Abdoulaye Ndiaye mii juge bi à l'époque mo né won

ce procès bi nga xamantene mo amone le 6 octobre ñu war ko wat en tant que rapporteur mu wara nek quelqu'un d'impartial alors que moom nekkul impartial parce que farna fam far xam nañ ko na même bir mi même problème bi même candidature du président Ousmane Sonko atte won nako le 6 octobre 2023 fele le cour suprême qui litige bi nga xamantene c'était entre Ousmane Sonko ay avocat am ak ñi nga xamantene ñoy DG ñooy DGE te fàttaliku jamono ñi nga xamantene wala bok ndaw si nga xam mom moy magistrat bi ñu naan Marème Gueye Diop fàttaliku len lam mu waxoon na il y a une violation manifeste fondamentale des droits de Ousmane Sonko parce que DGE waru la jox bopam ay pouvoir yu melni ni pouvoir conseil constitutionnel dafa wara a defoon lool la magistrat bi nga xamantene à l'époque Marem Gueye Diop ba nekkoon cour suprême nekkoon procureur ci mon ba moom dëgg gi la joxoon Ousmane Sonko waaye teewul moom Abdoulaye Ndiaye top ko ci loolu dafa yoon atte xaaj Ousmane Sonko ay àqam ak ay yelleefam daal jox DG e dëgg loolu moo waraloon waa kër Ousmane Sonko dem fële nga xamante ne moom mooy Ziguinchor ca dëkk déposer fa plainte juge Sabassi Faye ne Ousmane Sonko nañ ko jox lii nga de parrainage am moom mu jël contre pied wu Abdoulaye Ndiaye tay mbir mi bu dellusiwaatee ci fi nga xamante ne moom cour suprême Abdoulaye Ndiaye wara a rapporteur wara proposer une décision xel dafay tey ne ki bokkon na ci ñi nga xamante wala mo nekkoon ki ne Ousmane Sonko jarul ñuko jox fils de parrainage daal jox deug DGE le 6 octobre ci même affaire kon affaire bi bu demee Ziguinchor Ousmane Sonko am fa deug mu war a delloosiwaat cour suprême à travers un pourvoi en cassation mu wara togat ci cour bi en tant que rapporteur wara joxe une décision ñu né décision bi ce ne sera pas une wala proposer une décision pardon ñu ne décision bi muy proposer mom ce ne sera pas une décision impartiale parce que dafa far tax faram xam nañ ko ba ndax té mom décidé won na le 6 octobre ca cour suprême xagn Ousmane Sonko ay akam ak ay yellefam mo waral wa Ousmane Sonko ak ay avocat am daal di récuser Abdoulaye Ndiaye mi nga xamantene tay mom la wa nguur gi bëgg a mu nekk ki nga xamantene moy rapporteur bi wara tok ci Cour suprême le 17 novembre 2023 ngir xaj le président Ousmane Sonko ay akam ak ay yellefam li mo waral wa keur Ousmane Sonko lank daat ne kat duñu nangu mom mu tok en tant que rapporteur ci procès bi nga xamantene lañu la jëm kon fi ngeen ni comprendre ni li ñuy wax ni suñu réew mi.

mbir la moo xamante impartial parce que mon décision am ko ba pare bu ki la war a décision ba pare lu tax ngay dem ci moom mu lay proposer décision xam proposition ba pare parce que àtte woon na la ba condamné la pourquoi moom ñuy demat ci moom mu ñuy loolu même problème parce que en réalité juge Abdoulaye euh, le rapporteur Abdoulaye Ndiaye mën na ñëwaat amaat même position bi pour contredire ki nga xamante ne moom mooy juge Sabassi Faye dëggal décision bi nga xamante ne moom la jëloon moom à l'époque le 6 octobre 2023 daal di xam président Ousmane Sonko li nga xamante ne moom mooy ay àqam ak ay yelleefam lii mooy problème bi nga xamante ne moom la ñu am kon ci même affaire bi même juge bi daf ci bëgg a ñëw ñaari yoon alors que attewoon na ci fële mu bëgg a attewaat fii loolu lay problème bi ñu amee ci même affaire bi la candidature président Ousmane Sonko mo waral avocat au président Ousmane Datné, duñu nangu rapporteur, nga suis mom Abdoulaye Ndiaye rapporteur mu bok ci cour bi nga composé atte atté candidature président Ousmane Sonko le 17 octobre le 17 novembre pardon 2023 benen bi moy mom bu ñëwé tay nako ko acté waatal yow Abdoulaye ndjay wala boo joxeel sa xalat propose une décision ci décision bi ci acté bi nga xamantene sabasi fay Faye nako ci Ousmane Sonko daate lañ ko jox ay fiche de parrainage mom meun na wax ne ki man décision ba ma décidé woon ca Cour suprême dat ne DGE mo am deug ci Ousmane Sonko mom da ñëw weddi ko moom mu war a ñëw toog moom Abdoulaye Ndiaye war a atte ci weddi bi nga xamante ne Sabasy Faye weddi na ko ko moom est-ce que moom dina jox dëgg Sabasy Faye dina jox dëgg Ousmane Sonko xañ boppam la mu xañoon Ousmane Sonko c'est-à-dire xañ boppam li nga xamante ne mooy dëgg gi parce que moom amul dëgg gi kon affaire bi ci lu wér lu amul sikki sàkka mooy le juge Abdoulaye Ndiaye rapporteur nga xamantene ne lañ bëgg choisir comme rapporteur ci procès wu 17 novembre 2023 euh, bi nga xam ne wara teunk la candidature du président Ousmane Sonko au Sénégal mu wara a des ñu ne kat procès le rapporteur Abdoulaye Ndiaye doyuñu tëddeewul njaaxaanaay xam nañ position xañoon na président Ousmane Sonko li nga xamante ne moom mooy ak ay am ak ay yelleefam loolu mooy li xew en ce moment te loolu mooy li nga xamante ne moom ay avocat wu président Ousmane Sonko di kaas moo waral ñu def bind seen texte bii nga xamante ne dama ciy ànd ak ki nga xam ne moom mooy sama sama réalisateur mu wan leen exactement lan mooy position wu avocat wu président Ousmane Sonko lii ma wax rek. ay avocat mënees naa jàpp ne sax pour ñu bañ fee yàgg live bi bañ a gudd mënees naa jàpp ne ñoom loolu la ñu waxoon mooy li ñu wax mooy moom le magistrat et juge Abdoulaye Ndiaye tey jii nii ñu bokk ko def rapporteur ci même fait waru koo mën a doon parce que xam nañ fi ñu far mbokk yi lii dee delloo si waat fi réew mi toll ci wàllum justice ak ci wàllu yoon réew mi yoon amu fi te ki gën a ñaar ñii ñoo yàq yoon ci réew mi Macky Sall ak ñenn ci magistrats yi parce que magistrat yoy amuñu jom amuñu luñu gëm gëmuñu dara Macky Sall moom ñëpp xam nañ ay biram xam nañ position xam nañ ni doxale gëmul justice limu gëm moy mom limu bëgg ut ñu wul dara ñu mel ni mom, ne leen décider leen mu ñoo ñu décider ko mu ne donc ce sont des décisions de justice yo xamantene dañ koy appliquer et pourtant bam amé décision de justice bo xamantene c'est contraire à mom limu bëgg dafa def li moy non seulement da fexé ba lolu kenn du ko appliquer mu sant DGE bañ ko appliqué waa naa bañ ne DGE nañ ko appliqué mu dindi leen waaye di juge ba décidé loolu muy juge Sabassy fay mu yónnee ko igage pour ñu xool liggéeyam ngir bëggoo ut luñ ko taqal lii mooy Macky Sall te lii mooy réew mi fi mu toll tey boo ko waxee nag ñu ne euh, respecté wul magistrat yi daal di bëgg jàpp tëj ci kaso bi mais magistrat yi ci boppam ñoo respecté seen bopp ñenn ci magistrat yi parce que am na ñu am jom am na ñoo xamante ne am valeur am dignité waaye am na ñu ñàkk jom am na ci ñu indigne am na ñoo xamante ne amuñu benn valeur lu ñu xam rek mooy li Macky Sall bëgg ak haine bu ñu haine Ousmane Sonko bañ réew mi nag parce que bañ réew mi weesuwul am nit koo xamante ne ndaw ñi bàyyi nañ ko xel topp nañ ko mi ngi am proposition yi muy def ngir defar réew mi di xeex ngir réew mi yéen seeni intérêt yi kese ngeen ni lii du fi amee dañuy xeex ngir loolu bañ fi am yenn magistrat yi position magistrat Abdoulaye Ndiaye le procureur général magistrat que juge Marème Diop waxoon na Ousmane Sonko ñoo ak ay ak ay et que DGE amol droit day xañ Ousmane Sonko di parrainage fiche de parrainage na ko

dëgg Ousmane Sonko lay àndal droit Ousmane Sonko lay àndal parce que Ousmane Sonko moo am dëgg Ousmane Sonko moo am droit loolu mooy la réalité mais malheureusement décision boobu bañ ko décider Macky Sall ak ay ñoñom dañoo ne duñu ko appliquer ca Ziguinchor ñu ne Ousmane Sonko duñ ko jox li nga xam ne moom mooy fiche de parrainage am DG loolu la wax Sénat ñëw ne da ko koy jox te mën a mën naa mën mën naa laa yëkkati substitut wu à toi jël li nga xamante mooy fiche de parrainage jox ko ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko parce que am naa pouvoir Macky Sall pour dagg loolu bañ loolu am tax équipe bu Sénat bi yëpp mu dindi leen teg fa ñoo xamante ne ay militant wu APR lañ parce que ñëpp xam nañ ne Cheikh Awa Balla bi nga xamante ne moo jiite woon ENA kooku ñëpp xam nañ ne APR la bokk ñëpp xam nañ ne dafa def campagne présidentielle 2019 pour falaat Macky Sall tey moom la ñu bëgg a indilaat biir Sénat moom Macky Sall yamu ca mu sant agent judiciaire de l'État nga xamante ne moom xaalis la daan toppee nit mu dugal ko ci mbirum politique. Pour daal di pourvoi en cassation mbir mi dem tay pour cour suprême ñu war ko attewat jox Ousmane Sonko deug wala ñu xagn ko li nga xamne ne de parrainage mu am deug ñu bëgg ñoo juge ba ko xañoon dëgg cour suprême le 6 octobre en tant que rapporteur mu un wara togat nous wala proposer une décision aux autres juges argumenter ko pour convaincre ces juges là à ce que ñu voter li nga xamantene moy li mu bëgg mom ay avocat au président Ousmane Sonko.

le prévoit la constitution tel que le prévoit li nga la fonction de magistrature Ça yu tanné ay nit ñu war a bu mënul ci ñoom dara dina uti pexe loolu mooy la vérité tey te gis nañu ne kenn ci ñoom xam trajectoire am xam fi mu jaar xam fi mu jaar ci bu dara ci même dossier avec le président Ousmane Sonko kon moom dañ ko ne dañ koy récuser donc nous mën a dossier bi avec le même magistrat en tant que rapporteur kon Abdoulaye Ndiaye da war a waru warut a sax par éthique et par déontologie waru won nangou togat en tant que magistrat da waroon na wax ni mbir mi atte woon naa ko ci sama position mënuma ci tooge togat di ci attewaat mom en tant que juge magistrat bu wat xam lan moy fonction de magistrature daf ko wara a bañ waaye gëm dina ko bañ parce que bu ko don bañ mbir mi du egsi parce que ci cour suprême atté bu njëkk ba lay jox Ousmane Sonko dëgg waye da ko ko xañoon comme le même homme la même personne le même juge avec une fonction quelque peu différente cette fois-ci rapporteur lay doon waaye day proposer convaincre me influencer mon moo ñëwaat même dossier bi ñoo lànk au président Ousmane Sonko wax Ousmane Sonko nee na l'ank. lànk mbokk yi dañ leen xamaloon na live bi du gudd lii daal mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon di leen xamal ne la waaye saa su ne su ko jaree rek incha allahu rabbi dinañ leen leeralal ba mu leer naññ mbir mi ba ñëpp xam exactement lan lañuy ñuy wàcc ak qu'est-ce qui se trame ak fan lañu jëm donc procès wu 17 novembre 2023 ca cour suprême pour voir en cassation bi nga xam ne agent judiciaire de l'État jël na ko manœuvre yu commencé na bu yàgg pour xool naka la ñuy tànnee ay juge yu xañ Ousmane Sonko ay àqam ak ay yelleefam magistrat yi ñu tànn nag. ñoom ñooy goreel seen bopp ci njub ak lu baax wala ñu suuxat seen bopp ci lu bon ak far ak bañ def li nga xamante ne moom mooy seen rôle loolu nag li ci kanam raw li bët waaye lépp loo xamante ne am nañ ci ay doute incha allahu rabbi comme information yu leer danañ génn fii def leen lay leeral leen ku ko yéen opinion bi ñépp xam li xew quelle que soit la décision qui sera prise ñun en amont manam bala ñu ko jël ñu Nous kat li moy sen statut li position li moy li nga lañ wara xaar ci parce que nous lañ def fi lañ jaar li lañ wax ak Macky Sall mbokk yi jëf di leen jox dig ci fan ci live ngir waxtane ak yeen li nga moy actualité politique notamment actualité Pastef ak le président Ousmane Sonko jëf réew réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main yeneen réew yi ko def gënuñu ñu gënuñu ñu wallaahi yéen laa la jeunesse 2024 ñu soppi réew mi 2024 changement commencé na faw 2024 yor yor ñaaw ñaaw yor yor yor yor définitivement jog jag jog jag jaam bu mu jaam bi delloo si àll ci réew mi ci réew mi séddale ko ci séddale bu maane bu maane lii la suñu projet bi ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex koy koy door koy door woon ñu woon fukki nit fukki nit di waxtaan ak Sénégalais yi ngeen koy gëm koy gëm ba tey mu tey mu nga xam ne ñun xam nañu bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla ñu tere jël réew